metti surtout ak Covid bi donc di wu ñu bëri hmm, parce que c'est très très difficile vraiment fii fii fii réew mi toll mais su doon sama sagu aussi parce que si suuf si lay commencé parce que suuf yi moo xaw a cher moo tax léegi immobilier bi xaw a cher xaw a metti tabax dafa metti investissement bi dafa metti parce que maintenant tu waa des appartements trois cent mille à deux cent cinquante mille et c'est vraiment trop ci fi réew mi toll mais il faut que mu commencé si wàññi suuf bi suuf bi su wàññeekoo rek ñun ñëpp ñu yërëmante aussi ñu yërëm locataires yi vraiment xëy na après voilà. on est une entreprise hmm? ci entreprise lañ nekk ñëpp xam nañ ñu donc liggéey bi aussi il faut nga jël parce que dañuy fay impôt agent immobilier yëpp dañuy fay impôt hmm? c'est très très difficile. bañ a jël seen xaalis aussi di ko sànni di ko jox ay courtage ak yooyu ñëw jox ko benn entreprise mu wutal la li nga bëgg pour man loolu c'est mieux. il faut être professionnel parce que boo yoree sa kër investir ay millions doo ko doo ko sànni noonu parce que tey agence immobilière liggéeyam mooy mooy ñëw defal la offre xool sa kër defal la offre wax la kër gi li mu mun a génnee et le plus difficile aussi c'est de prospecter de bons locataires et pour avoir de bons locataires il faut être aussi donc loolu mooy liggéey bi boo ci yàggul xamoo ko amoo ci expérience doo ko mun. donc bailleurs yi aussi bu ñu investir seen xaalis pas ñu jël ko di ko jéem a gérer seen bopp parce que réew du doxee noonu réew ni muy doxee mooy ku nekk ko jox ko wàllam ak xam ci li muy liggéey donc réew noonu lay marché et j'espère tey fi jeunesse bi toll ñun ñëpp ñu essayer réussir ensemble parce que gis nañ ni jeunes yi ñu bëri ñi ngi ñi ngi ñi ngi jël ay gaal ñii ñi ngi bëgg a tukki parce que tey pour ñu am seen rêve Europe rek lañ ko mun a réaliser te gëm nañ ñun ñëpp mun nañ ko réaliser fii donc ñun ñëpp mun nañu réussir fii si suñu réew mais pour ñu réussir aussi dafay am lu muy laaj il faut paaka que ñu nekk ci kaw ñu jàppalante seen biir ñoom ci kaw il faut ñuy jàppale ñu nekk ci suuf